wala li nga nga bëgg a ñaxtu defee ko neneen loolu di di daw wala di grève de la faim parce que dalay perte loo temps rawatina daw ok comme ngeen ko xame daw day yokk xar bi karaw parce que soo dawee li ñu lay toppee day tegu daw bi ñëw yokku ci parce que daw c'est un délit boo xam ne euh, code pénal